waa Pastef parce que liñ koy dégg dafa bëri ah mbirum war nañu ko taxawuñu ko wax nañ ci suuf déggoon nañ sax li doxoon diggante taxawu ak Pastef ba tey jeexul da nga jàpp ni lii raam nii dafay soog a tàmbali rek waaye lu bëri dana feeñ ca kanam lu bëri dana feeñ ca kanam ah. te bis bu ñu yàlla dimbali woon ba ñu dem deuxième tour ah. ba man sonk génn euh, cas de figure ah, contre Amadou Ba lu bëri dina leer su boobaa di ngeen gis Euh, nañ nañ yàlla nañ yàlla may mucc rek. amiin ak fekkee. ba ñu dem ba ci kanam. Mm. Euh, lu bari dana feeñ. waaw lu baaree bari dana feeñ. lu baaree bari dana feeñ. ci kaw. ñu ñaanit Ousmane génn ca la mu ne tiital na la ba tey. waaw waaw waaw waaw xam nga xam nga. Euh, nit ku nekk hôpital. docteur. Mm. wax ni kii il dans le comment ba am sax avocat am génn ne il est dans le coma profond. maître Ciré Clédor Ly. voilà maître Ciré Clédor Ly ba wax sax ni il serait dans le coma profond. profond voilà loolu moom day tiital ñëpp. parce que xam nga Ousmane première grève am ba waxoon nañu il était dans le comment oui déjà coma rek boo ci xasee ba nekk ay séquelles mën nañ laa topp sur une dizaine vingtaine d'années boo duggaatee deuxième comment la. Euh, affaire bu graaw la. Hmm. affaire bu graaw la mais man affaire grève de la euh, faim wu Ousmane dama ci bëgg euh, jàngat du point de vue de Ousmane. Hmm. avant ma ciy jàngat du point de vue politique. oui cest dire du point de vue de la personne. sur quest qui peut motiver grève de la faim encore de Ousmane pour man il peut-être deux choses. première chose xam nga Ousmane c'est un homme d'honneur ah code d'honneur voilà non c'est un chevalier des temps modernes quoi hmm? euh, jaar-jaaram wane na ko ko hmm. peut-être que moom en tant que Ousmane am na kersa wala dignité mayu ko mu song xeex bi ay sénégalais ñëw di ko ko xeexal rawatina ay jigéen di ko ko xeexal ba dem ci engagé wu grève de la fin moom mu continuer di lekk ak naan connaissant un peu l'homme ngorom ak dignité du ko permettre loolu comprendre hmm. parce que xeex bi mu yëkkati moom ak combat bi mu yëkkati moo tax ñooñu lépp dale Ousmane mooy genre boo xam ne euh, bu musiba dee am moom bu sañoon sax moo koy gàddu moo koy gàddu bàyyi ñeneen gars yu mucc bu xewel dee am moom bu bu sañoon da koy jox ñëpp moom toog hmm. genre nit ñooñu quoi lakkat yi quoi comme sa dit c'est-à-dire que des hommes d'honneur c'est des chevaliers de temps moderne comprendre mm. moom li sëñ Fallou doon wax euh, non Serigne Saliou moom bu sañoon ak lu jëm ci njabootam euh, da leen di xëcc xewal di leen dàqal musiba. c'est mm. comprendre nga donc genre nit boobu la ko quoi euh, donc peut-être que dignité am du ko doon may mu dem bi ci des mooy. Mm. moom jàpp na ni bu fekkee yoon rek la woon dañ ko waxoon bàyyil kii bañ yoon dem ba cëppaandaw ga. waaw léegi nag yoon dem na ba cëppaandaw ga réhabilité nañ ko. mais ñu ngi koy jaay doole et que à l'état actuel étant détention hmm. benn arme rek la dese pour mën a xeex moom mooy grève de la faim hmm. bi ci des euh, mooy ca premier grève de la faim ba dama faroon ci weerum béy sama béy ma waaw sama béy ma dafa ma waxoon ne dafa ma indiloon information hmm. que il y avait des en fait pour Ousmane bàyyi grève bi euh, waaye euh, nguur gi. dañoo jàppoon ni mën nañu koo libeere mais pour ñu libérer ko il faut mu bàyyi grève de la faim ba pare. Hmm. amoon na sax ab kilifa bu ci doon dox. kilifa googu sax mu jigi moo convaincre Ousmane moom mu bàyyi grève de la faim bi li ci waroon topp nag. mooy ñu bako bako malheureusement comme toujours Ousmane moom lu mu waxanteeg euh, euh, ca ñooñee def médiation. Ousmane moom. Euh, li ciy warlam di ci cëram da koy def mais c'est la deuxième fois euh, ñu nekk ci cas boo xam ne Ousmane def na li ko war waaye beneen parti bi deful lu ko war. est-ce hmm. su boobaa day delluwaat day delloowaat. mbuur ca ca ca mboy mboy ga. léegi nag advienne que pourra mais lu mu ci mënti doon. Hmm. Euh, loolu mooy du point de vue Ousmane sur ce qui peut justifier. ou ce qui peut expliquer pas justifier mais oui. expliquer kii bi mais pour man dama jàpp ni su fekkoon dama koy xelal man xelal Ousmane waaw su mm. fekkoon euh, sëñ naa ko wax mm. dama ko naan mu bàyyi grève de la faim bi xam nga lu tax lu tax jeex na ba pare maanaam jeex na ba pare jeex na ba pare c'est-à-dire que am na ndam ba pare te fi ñu toll nii réew mi dañu koy soxla moom dans la plénitude de son être parce que changement yi war a am ak rupture yi war a mën a am moom moo ko war a impulser c'est-à-dire que tey jii euh, Ousmane dafa war a nekk maestro xam nga bu ñu nokkee ci orchestre philharmonique. waay xam nga lan mooy la particularité du maestro. Hmm. c'est-à-dire que lui il n'a pas vocation à jouer un instrument. mais c'est lui qui va déterminer le tempo et le sens de la musique à travers sa baguette magique gis nga musique afro waa ji du yor guitare du yor ki on l'appelle le maestro mais bantam boobu muy yor hmm. di def nii mooy jox ton bi intonation bi et cetera ci fi ñu jëm hmm. Ousmane dañu ko soxla foofu comme le maestro donc dafa war a mën a retrouver la plénitude de son être te lii fii ñu jotu dem hmm. même si ñu ngi koy teg ay injustice mais jeex na ba pare parce que ci fii ñu jot a dem nii yaakaar moom dossier du point de vue du droit. Mmh. conseil constitutionnel rek moo ci mën a abduwaat. parce que xam nga affaire du fichier la doon wax. gars yi nee ne dañuy observer délai. Mmh. délai yi du passé 15 jours. Ouais. d' sax même agent judiciaire de yóbbu na ko ba ñu enrôlé ko. très bien léegi d' ici 15 jours ñu notifié ko ay ou Ousmane Sonko pour ñoom it am nañ 6 jours. je sais dossier boobu dana féete boor te yaakaaruma à l'état actuel hmm. sur les éclairages de maître Doudou Ndoye mu am leneen lu bees ci dossier boobu lu dul kii bi donc su boobaa Ousmane day jot fiche te bu jotee fiche hmm. beneen filtre rek moo fi amaat ci diggante bi mooy conseil constitutionnel ca la ma la waxoon ca conseil euh, constitutionnel hmm. kon donc Ousmane l'avant-dernier euh, benn obstacle rek ko ko dese bu doon course et benn e rek a ko dese muy conseil constitutionnel comprendre par rapport ak combat bi lu mu laaj yëpp nit ñi dañuy soxla euh, Ousmane Sonko dans la plénitude de son être pour mën a gouverner et aller vers les ruptures fondamentales hmm. douloureuses et profonde mais su ñu amee un Ousmane Sonko très affaibli hmm. euh, ku tal davantage santeem que réew mi euh, même s'il arrive au pouvoir mën nañu bañ a am suivi boobu parce que fi réew mi toll. Hmm. poigne bi mu laaj. Hmm. ak fulla ak fayda bi mu laaj ak autorité bi ak personnalité bi. ak engouement bi. ak nangul bi ko gars yi nangul à l' état actuel euh, Ousmane la du keneen. mooma. non non non moom la à actuelle fii nii. Euh, li askan bi di xaar dëgg dëgg dëgg dëgg. Hmm. ki ko mën a jëmmal doxe ko. waxe ko jëfe ko euh, c'est Ousmane Sonko. parce que moom rek tey jii moom man tey jii Ousmane Sonko dama lay wax ni su génnoon ni sénégalais bu leen voté taux de participation bi ça va tourner autour pour cent c'est-à-dire que waa Bennoo rek ñooy dem voté ji. déedéet waay waaw cest à dama la bëgg wax rek euh, fi mu toll ci askan bi. waay tey jii bu génnoon ne sénégalais bu leen voté. Hmm. tey jii Ousmane Sonko bu falu woon ne boo yëpp fekk leen ma ca àll ba ca tool ba. Hmm. ñëpp su fekkee xam nga Ousmane Sonko day xaw a nduru Ablaye Wade bi mu fiy ñëw 2000. Euh, man bokkoon naa ci génération bi gis nga jamono yooyu Abdoulaye Wade bu ñëwoon si meeku leen ngeen tëdd ci tali bi dañu si tëdd ci tali bi parce que yaakaar bi ñu amoon ak ak ak ak ak ak gëm-gëm bi ñu ko gëmoon. Hmm. Abdoulaye Wade foofu sax la Abdoulaye Wade raté tey ji bu ñu woon nañu ñëw leen liggéey ci chantier yi. Hmm. gratuitement kenn du leen fay nit ñi dañ koy def foofa sénégalais yi tolloon ak Abdoulaye Wade 2000. fa la Sénégalais yi toll tey jii ak Ousmane Sonko tey jii am na yu bëri yoo xam ne. Hmm. en termes de mobilisation sociale de mobilisation populaire. tey dama la jox benn misaal rek. Ziguinchor bu nekkee maire. Euh, xëyul suba ne booy yëpp bàyyi leen ataaya ñëw leen fekk ma ñu defar canalisation yi. tu as vu résultat gis nga euh, tey jii bu ko defoon ñëw ne gars yi fekk leen ma xel comme autosuffisance alimentaire par force ñëpp futteeku dem euh, joxe ji àllarba. c'est-à-dire que mm. loolu à l'état moom la ko yàlla may du man mii du keneen moom la ko yàlla may tey jii moom bu falu woon nekk président. Mm. lu mu wax tracé ko. nga nangu ko nga ñàkk koo nangu di nga ko jëfee ndax yaakaar bi ngay am ci moom. comme les vacances patriotiques les vacances patriotiques agricoles li mu mën a wax tey jii jeunesse Sénégal dégg ko du amul keneen ci candidat ku ko mën a wax seen kii yuy dégg la le don de soi bi ñuy wax nii. Hmm, pour la patrie pour la patrie. Euh, tey Ousmane bu wowoon booy sax ne leen kaay leen liggéey fenn maa kenn du leen fay booy dañuy dem liggéey. loolu nag yàlla mooy doxalee affaire bi noonu. moo tax mu war a dakkal ci yow. très bien très bien parce que am na ñu koy wax ci biir ci suuf pour que ñu bokkal parti bi d'accordul ci taxawaay bi pour que 2024. Euh, hmm. ñu am parce que euh, il faut que waxtaan ak un médecin man damay waxtaan ak ay médecins. wax hmm. ma lan mooy comment. gis nga comment grand. bu la yàlla dimbiliwul nga am benn suivi bi. Hmm. Euh, soo maytul bu la xësee ba dal dootoo nekk ka nga doonoon. comment ah comment lu garaaw la xam nga comment mooy lan. ci wolof mooy déegu ndaw. comment ci wolof mooy déegu ndaw. ba pare ñu ne comment profond profond maanaam daanaka rek dee nga. léegi nag nga defaat deuxième comment sa à que premier comment bi rek sekkeel yi rek bul xam il faut nga benn traitement euh, mënuloo génn ci comment daanaka melaat comme na nga meloon wax na nga ciy dugg te Ousmane Sonko vraiment. Euh, ci moment bi mu nekkee dans les lien de détention ba léegi. depuis juillet ba léegi. ba léegi quoi moo tax man boo jëlee yooyu boole ko ci. très bien moo tax a de quoi s'inquiéter ngeen bëgg très bien moo man su fekkoon dama koy ñaan. Euh, na boole li ko neex ak li ko naqari rek muñ. li des ci temps bi. Hmm. mu concentré ko sur sa santé. li ci des lu mouvement révolutionnaire dina ko téye. comprendre. Hmm. même campagne bi sax jarul sax muy campagne Ousmane jarul sax muy campagne. moom moom mouvement révolutionnaire campagne na ko moom na lijjanti boppam pour que février 2024 ñu am Ousmane Sonko sur ses deux jambes et la plénitude de son esprit pour que ci li mu woo sénégalais yi en terme de réforme de rupture mu mën ko contrôler gérer ko donner le tempo soo nee jigéen ñee tax xëy na en partie mu def li mu def ndax ko xam Ousmane ak bañam ak du nangu di dégg ay jigéen ñu ngi mën a combat mu bàyyi jàppoo ni foofu it solution moom fa mooy bu jigéen ñi bàyyee kon mu jaay. waaw moo tax sax pour man sax euh, ah. jigéen ñi. Euh, c'est vrai que les conditions de détention man am na kenn ku ma ci waxtaanal mais vraiment les conditions de détention des femmes vraiment métti na quoi euh, dama la ci jox benn cas rek. Hmm. te cas boobu daanaka bari na. soxna aji soxna aji euh, moom waa kawlax la aji ndaw waa Kaolack la hmm. hmm. mi ngi Suisse ak njabootam ak kër waa këram ak yooyu ak business am dafi hmm. ñëwoon di waaja ñi bi ñu jàpp ko boobu ba léegi dossier am kenn waxu ci dara xam nga fii lan moo graaw grand dañu lay jàpp te kenn du instruire sa dossier c'est-à-dire que yow kenn du la wax sax lan lañ lay toppee quoi en fait cest à bu fekkoon dañuy jàpp sax ngay xëy di dem tribunal di gis juge ñu naan la yow de ñu ngi lay toppee lii ak lii ak lii lii mais c'est-à-dire jàpp rek bàyyi la foofu quoi. Hmm. xam nga yow doo xam ci loo nekk ko c'est-à-dire loolu moo loolu moo doy waar. et d'ailleurs sax boo gisee Sénégal ñu génne ko ci euh, comité des droits de l'homme des Nations Unies yooyu bokk na ci c'est-à-dire nit ki dañ nekk état de droit. terewuñ nga jàpp oui mais état bi communiqué na ci ah. da doon wax ni ñoom jeexal nañu ah. non non mais mais depuis trois ans la ñu fa siégé. non non mais mais mais souvent dañ lay reconduire nekkul ni mandat unique la déedéet. ah ñoom dañuy. ñoom dafa dafa mel dañ leen reconduire selon le comité.